bu perdee euh, li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy Yoff et bi ngay def bilan bi euh, boo déggee ma ne certains analystes jàpp nañ ne da nga bi ngay def bilan élection locale yi li waral seen débâcle bi vous aviez semblé dire surtout bi ñu nommé Mame Mbaye Niang mu dellusi si bi vous aviez semblé dire dafa mel ni li xew yépp ki nga xam ne moom mooy président de la République Macky Sall moo ko moo ko bénir parce que la candidature parallèle de Mame Mbaye Niang euh, bu leen yàqalul carrément euh, obstrué na li nga xam ne moom mooy de la de la de la majorité loolu moo tax ñenn à l'époque ñenn ñi jàpp ne euh, am nga frustration boo am Mame Mbaye Niang il revient au gouvernement pendant que vous vous en sortez merci Maïmouna man je ne suis pas vraiment de qui donc abordait les question toutes les question comme ça. émission ah, c'est wolof. di personnaliser effectivement mbir yi di wax di tudd ay tur. je crois que am na niveau boo xamante ne boo fa tolloo si réew mi da ngay wax principe. da ngay wax orientation da ngay wax idée. Euh, je crois que loolu moo gën a pur loolu moo gën a si sinon rek ça peut poser d'autres considérations et bëgguma nekk foofu. ce qu'il faut noter c'est que dem nañu élection législative euh, dem élection dem élection locale avant les législatives élection locale yi dafa amoon une particularité ça vraiment maa ngi ci analyse bi pour donc un tout petit peu dans l'évaluation wax lan moo xewoon réellement la particularité mooy que ne la tête de liste donc devient maire si on gagne loolu mooy particularité élection yi boo jiitee liste bi boo ñu gagnee da ngay nekk maire pour ce qui concerne Yoff euh, maay woon tête bi mais maay woon aussi la tête de liste du département mu am lu ñuy wax une éligibilité leerul woon trop si xelu donc électeurs yi par rapport ak choix boobu loolu déjà ne woon na quand même quelque part si mbiru compréhension bi loo xamante ne dysfonctionnement la woon si xelu donc électeurs yi beneen bi mooy je crois que secret de polichinelle la euh, yógoowuñu parce que quand même Wargal ak Yogo on était trop dispersés de telle sorte que fondamentalement suñu électeurs yi nekk ci dakaar dañoo diviser woon ku nekk di wut sa morom je crois que même que enjeu bi c'était dakaar la capitale donc euh, Dakar la capitale ñu koy song bëgg ko gagner je crois que moment boobu dañu waroon wax arrêtons nañu ànd ñun ñëpp pour l'objectif principal c'est de gagner loolu amul et ça a été effectivement donc. ci euh, waroon wax loolu mooy ki leen jiite yéen ñëpp muy président de la république. ma ma ma ma terminer ma je crois quand même que président la république la ma waroon def choisir na un candidat la ma waroon def mooy orienter tout le monde vers le candidat qu'il a choisi maintenant euh, en politique am na ñoo xamante ne moom a boobu dañu estimer que ne ñoom. am nañ possibilité gagner ñu demal seen bopp alors que moment boobu il fallait voir vraiment l'intérêt général de la coalition et du parti pour ñu nekk ñu ñëpp autour du candidat qui a été donc choisi par le chef de l'État loolu demeewul noonu malheureusement le résultat est euh, deme na noo xamante ne ñun ñëpp vraiment gis nañ ñu mu demee pour ce qui concerne maintenant Yoff effectivement c'était la grande surprise la grande surprise boo xamante ne tey boo koy xoolaat li ko waral bëri na li ma wax noonu am na mooy que ne les électeurs de Yoff se disaient mais Diouf Sarr euh, day dem à la ville donc bu demee à la ville ba à la ville mais ici au niveau de Yoff essayons de voir ñun kan lañu bëgg mu am une dispersion par rapport ak par rapport ak candidat yi ne Yoff beneen bi euh, li ma wax sànq ñëw na ba dugg biir Yoff en terme donc de liste parallèle et autres dans la même coalition mais aussi mu am de grandes promesses de l'État yoo xamante ne donc c'était par rapport à la commune yu tardé je ma def ci benn exemple boo jëlee sur Ouest Foire par exemple route bi xamante ne dafa jógee la Fédération sénégalaise de football avec Promoville traversé tout Ouest Foire mais population Ouest Foire yëpp dañoo foogoon ne c'est un projet de Abdoulaye Diouf Sarr alors que c'est un projet de l'État donc yu mel noonu évidemment day am des effets collatéraux dañ lay sanctionner sur des considérations yoo xamante ne fondamentalement pour des raisons de solidarité gouvernementale danga koy assumer mais dinga xam ne en réalité donc li déterminer donc projet boobu newul totalement sa loxo ak bien d'autres choses yoo xamante ne à l'analyse on se rend compte que euh, c'était quand même pas évident Yoff a été perdu Dakar aussi mais euh, encore une fois comme j'ai l'habitude de dire euh, ñu ay missionnaires lañ defuñu politique pour une victoire donc par rapport à un instant ma mais dañu def politique par rapport à une ambition bu fekkente ne la victoire n'est pas là il faut poursuivre pour atteindre l'ambition en reprenant le travail mais ci defetu Yoff bi loolu mooy suñu je vous ai entendu dire euh, Yoff du ma sax battre campagne tellement vous étiez sûr de de de, de votre coup et vous ne vous avez vous ne vous êtes pas rendu compte que euh, y a ay euh, force yu doon euh, traverser li nga xam ne moom mooy Yoff mais président de la République est-ce que alerté woon nga ko euh, sur les risques des de la multiplicité des candidatures euh, parallèles est-ce que waxtaan ngeen ngeen ngeen yéen ñaar. Maïmouna je crois quand même que li ma waxtaan ak président de la République je ne vais pas. Euh, est-ce que alerté nga ko euh, pour, pour pour me reprendre. je vais pas effectivement donc ici euh, sur ce plateau là dire li laa wax président de la République waxuma ko lii. mais ce qui est certain mooy que ne orientation bi mu joxe woon mooy que ne que ñëpp nañu nem autour du candidat que j'ai choisi effectivement euh, li nga wax am na dans mes rêves les plus profonds bu ñu ma yeewoon ne ma da ngay perte Yoff man du ma ko gëm et je crois que d'ailleurs ni ma ko dul gëmee man loolu aussi mooy woon le cas de tous les Sénégalais parce que fondamentalement euh, dañu fa liggéey loo xamante ne lu am solo la mais dañoo newoon aussi en phase totale avec la de Yoff euh, il s'est passé quand même loo xamante ne euh, pendant deux ans xaw na ma éloigner un tout petit peu du champ politique local euh, revenir nga si sànq je crois que ça fera l'objet d'ailleurs de nos échanges c'est toute la période Covid deux ans yoo xamante ne effectivement moi-même ma famille me voyait trois heures pendant ci journée bi et j'étais dans un combat au quotidien si benn enjeu boo xamante ne enjeu national mais loolu naturellement daf lay éloigner du terrain quotidien pendant ces deux ans deux ans yoo xamante ne da nga siy génn rek dugg dans les élections locales euh, ce n'est pas une justification c'est juste une explication yenn raison yi xamante ne parmi tant d'autres yi tax effectivement mu am effectivement ce cette cassure entre guillemets boo xamante ne peut-être euh, moo tax euh, en un moment les populations se sont dit euh, puisque enjeu bi c'est un enjeu et de la ville et au niveau local lui il veut aller à la ville mais fondamentalement essayons de chercher quelqu'un d'autre au niveau de Yoff moi je, comprends les choses comme ça mais encore une fois pour revenir rek si la ma waxoon léegi euh, combat la bu perdre mais ambition bi moo ëpp combat bi et cette ambition là moom la ñu poursuivre par rapport effectivement donc à notre ville par rapport à notre pays par rapport donc euh, à plein de choses